di wax ne président Macky Sall pour mu bañ a présenté wu Sénégal dafa tegu ci yoon yoon mooy Fara Diop candidat la am na droit am waaye Fara Diop moomu dafa am ki muy dem jox ay këyitam kooku moo koy daganal ne ko am nga droit def wala amoo droit def daf fi daloon ab Ablaye Wade ñu ne ko doo ko fi defee mu dem déposé ñu ne ko am nga droit def fi kon ñun am na lu ñu ci war a mën a jàngatee mooy sénégalais ñooy àtte. du faatu mooy taxaw naan Macky Sall amul droit def ko fi du Fara Diop mooy taxaw naan Macky Sall am na droit def ko fi dafa am ñi nga xamante ne nii ñooñu lañ koy bàyyeel mooy ñi nga xam ne ñooy dem vote ji ñooñu la ñuy bàyyeel naan ndëgëm Macky Sall war na fi toogaat wala waru fi toogaat ñooñu lañ koy bàyyeel loolu mooy yoonu Sénégal mooy président Macky Sall bi mu nee day wàññi sunu mandat bu mu demee foofu dañ ko ne mënoo ko wàññi lii parce que lii daa am ñu koy wàññi du yow yaa koy wàññi da ngay dellu si ñoom nga laaj leen. ndegam ñoom nangul nen la nga wàññi ko wala nanguñu ko président Macky Sall bu mu ñëwee ñun ñu nangul ko ko ne ko wàññil nen la ko juróomi at comme que wàññil nen ko ko juróomi at rek mandat bi am na tur kon dañ naan mandat de cinq ans nul ne peut faire plus de mandat consécutif de cinq ans parce que nekkatul sept ans parce que dañ kaa wàññi kon su ma déggee ñin ñi naan mandat sept ans ak cinq ans mooy ñaari mandat loolu du mandat loolu du mandat conseil constitutionnel bi mandat conseil constitutionnel mooy dix ans mandat bu nekk juróomi at loolu mooy mandat conseil constitutionnel bi boo jëlee mandat Macky Sall juróom-ñaari at ak juróomi at ñaari constitution ñaari mandat la mais constitution bi ci nekk bokkul constitution bi daf ko wax ne que mandat bii mënoo ko wàññi parce que mandat bi sénégalais yi ñoo ko moom da ngay dem ci sénégalais yi. mu toog ba mandat bi jeex mu dem ci sénégalais yi sénégalais yi nangul ko ne ko beneen mandat bii di ñëw may neen la ko nga wàññi ko kon président Macky Sall dafa dajeex ñaari mandat yu bokkul mooy mandat bu juróomi at ak mandat bu juróom at loolu nag boo leen naree ñëw taxaw ne def na ñaari mandat da ngeen di juum te ñu bëri xam nañ effectivement président Macky su déposé candidature am day jàll loolu nag fi ne nii. moom la gars yi di taxaw pour pëccëxoo indi ay coow parce que coow rek la opposition bi di bëgg Sénégal parce que li président Macky Sall di def ci réew mi lépp la ñuy bëgg suul ci ay affaire troisième mandat du ko fi def jaay doole yooyu yëpp ay waxu tappale la ay waxu tricherie la mais sénégalais yi am xel toog di gis gis seen dëkk ni muy développé xam na ne président Macky Sall luñ ko taxoon ñu fal ko ci réew mi mi ngi koy def kon ñun. ñooy am sañ-sañ ne ko ñun ñu bind suñu constition waxoon na la wàññil mandat bi ñun am nañu sañ-sañaat yóbbuwaat la ba cinquième mandat kooku suñu devoir la te bu nu demee ci référendum bu ñu demee si élection droit daf ñu ciy jox parce que la majorité gagne